asalaamualeykum mbokki ñu teewlu ci net bi TV Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte feggu kenn ci jotaayu xibaar ci waxtu wi saa bu jotee dañuy tënk xibaar yi ci kàllaama kocc waaye itam ci xibaar yi nga xam ne moom moo gën a rek daal di fës ci uh, bëccëgug uh, tey uh, ci samedi yemook Euh, fukki fan ak benn ci weeru mars dañuy doore xibaar yi ak euh, lu ñeel mbirum taskatu xibaar bi di Pape Ndiaye walfu euh, moom nag ba tey mu ngi ci kaso gi ginnaaw bu ñu ko placé mandat de dépôt porte pataral gi nga xam ne ñenn ci taskatu xibaar yi yeyuñu ci yàbbiwuñu ci ate mu nekk taskatu xibaar boo xam ne moom Pape Ndiaye nañu ko rek mën a daal di introduire ab journaliste d'investigation la waaye gisuñu bañ ko jàppee ba léegi rek euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk taskatu xibaar yi daal di ci yàbbi wala sax ñu wane ne ñu amal ab marche lu ni mel nag ak six chefs d'accusation yi nga xam ne moom la ñu ci kawam ndax bu ñu fàttalikoo moom Pape Ndiaye euh, ci lu ñeel fukk ak juróom-ñeenti yi mu wax ne dañoo rek daal di euh, wax ci lu jëm ci dossier ab Adji Sarr Ousmane Sonko ngir ñu classé ko sans suite moo waral moom Pape Ndiaye moomu ñu jàpp ko waaye ginnaaw si loolu six chefs d'accusation yi nga xam ne teg nañ ko ci kaw moo ko jural tey ji kaso ba fi ne bu ñu moytuwul dana rek dal di desandi ci kaso ginnaaw bu fekkee avocat sax ñu ngi ciy yëy yàbbi ngir lu ñeel ab liberté provisoire taskatu xibaaru Walf bi bu ñu rek fi ne dana ko jural leneen loo xam ne rek dana daal di desandi ci kaso gi ci lu ñuy des bokk na ci lu ñel mbirum Papis Diaw di ab taskatu xibaar ca TFM ginnaaw bu ñu càmbaree ay mbiram ba jot ko rek daal di atte moom Papis Diaw mujjee nañu ko rek dal di bàyyi abaa yëpp neggandiku li ko waxal bokk na ci accident bi nga xam ne moom moo amoon ci semaine ba lay weesu ci deux voies Kër Masary la ñu ko doon volontaire ak mise en danger de la de la vie d'autrui maanaam ay euh, ñàkk lucide ba pare di dawal euh, ci loo xam te ne nii jàppoon nañu ko ko ci weeru décembre gi weesu euh, mu mel ni moom Papis Diaw moomu amaana koy avertir su lu ni mel nag finne daal dinay yëkkati li nga xam ne moom moo di ay kàddu jëmale ko ci mbir moomu li ci jamono ji nga xam ne ca lañ ko doon teewlu li waral ndax bu ñu fàttali ko euh, moom Papis Diaw moomu jotoon na fee am coow lu mel nii ci ab jigéen bu toll woon ab diggante ba muy dawal itam toll woon na ci état boo xam ne yoon mayu ko woon mu dawal euh, ba mu fiiree waa ji ci boppam rek moo ko juraloon kaso cette fois ci nag ki mu fiir euh, te mu nekkoon ci état boo xam ne rek bu doy waar la maanaam inconscient ci jamono ji nga xam ne ci la accident boobu amee jural na ko tànk bu ab opération dal di mujjee rek dal di am ñu dal di wax ci génnu àdduna ak maître Ousmane Seye xibaar bi àjjuma la wàcc mu di xibaar bu naqari lool mu di maître Ousmane Seye boo xam ne ràññee nañu ko lool mu doon sax koo xam ne tey jii mënuñoo lim avocat yi ci réewum Sénégal te boolewuñu ko ci. ndax ci atum 1985 rek ci la daal di euh, prêter serment sol mbubum avocat boobaak tey nag gis nañ ko fi mu daal di euh, plaider ñu baree bari lu yàggul dara sax moom moo àngu woon dossier bu Sitor Ndour bi mu di dossier bi ñu koy jiiñ ci wàllum euh, viol ba tax moom Sitor Ndour mu ngi sous mandat de dépôt waaye tam Thione Ballago sek mi nga xam ne doon nañ ko topp ci wàllum faux billets maître Ousmane Seye moo nekkoon avocat moom maître Ousmane Seye moomu sax doon na yëngu ci wàllum politique ba jotoon bokki ci coalition bi. bi di Benno Bokk Yaakaar alxames bi passé la xibaar bi wàcc mu doon xibaar bu metti waaye itam genn kàddu gi ko Sénégal yëpp dal di seddal jébbal nañu ko boromam ñu koy ñaanal yàlla xare ko ca àjjanay Firdawsi ñu dal di wax ci mbirum Hadjibou Soumaré moom itam coow li nga xam ne a jot na fee rek ci Sénégal ci lu ñeel mbirum Marine Le Pen mi ñu wax ne dafa ñëw Sénégal ba taxoon le président de la République ci ab question boo xam ne moom Hadjibou Soumaré laaj na ko ndax dafa daal di jox Marine Le Pen xaalis bu toll ci sept virgule neuf milliards loolu nag moo ko jural tey ji yoon sax jot caa dugal loxoom ba yoon teg ko loxoom moom Hadjibou Soumaré ginnaaw euh, question boobu nga xam ne rek posé na ko le président de la République Macky Sall ci ab lettre ouverte boo xam ne daal dina koy euh, jagleel le ginnaaw loolu nag ñu doon wax ne nafay fay génn daal di baalu euh, euh, directement maanaam fi mu toogeewoon waxoon ko ba coow li siiw dafa jaaraat rek daal di weddiwaat lu ni wala mu baaluwaat ak ngir ñu mën kaa rek daal di libéré depuis talaata jàpp àllarba moom moo nekkoon débat boo xam ne waaye politique yëpp yooyu nan ci yàbbi ku ci mel ni Mimi Touré moom la mu ci jot a xamle moom moo di. lu jig njaag le président Macky Sall moom mooy njaag Hadjibou Soumaré deful lu dul poser ab question te bu fekkoon président Macky Sall recevoir recevoir ko coow lii lépp du fi rek dal di am mu mel ni moom Mimi dafa daal di jël position ci coow lii di xam ne rek ne président Macky Sall ci boppam moo waroon moytu recevoir ki nga xam ne moom moo di Marine Le Pen ci réew mi di Sénégal ndax ci amul lenn lu war a mën a tax rek mu daal di ko fi recevoir jiitul Pastef di Ousmane Sonko mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mbirum méga meeting méga meeting bi nga xam ne fas yéene nañ ko rek daal di amal le 4 waaye itam le 15 ci weeru mars gi nga xam ne ci la ñu nekk. Uh, mu mel ni moom Ousmane Sonko le 16 la war a dem wuy ji procès bi nga xam ne moom moo war a am ca tribunal ci ab àtte bu ñuy tëgg digganteem ak Mame Mbaye Niang mi mu tuumal ka 29 milliards yi mu ne Prodac daf ko ko rek daal di épinglé. ñetteel bi yoon boo xam ne rek daal dina ñuy dàq boobu lépp atte le 16 bi la war a wuy ji ay laaj yu bare bari yu samp ci Ousmane Sonko datam bi mu jàpp le 14 ak le 15 le 16 mu war a wuy ji ndax bu ñu xoolee ci arxemes ni yemook ci al ci arxemes yemook ni ki euh, bëri ki démb Ousmane Sonko daal dina yëkkati ay kàddu xam le ne le 14 ak le quinze ñu autorisé leen ñu ñàkk leen autorisé incha allah ci 46 départements yi ci Sénégal yëpp daañ ci amal bi lépp manifestation lu ni mel nag moom moo ay débat ak interrogation yu bare bari yu ca jot rek daal di juddu ana rek la lan la Ousmane Sonko bëgg est-ce que du stratégie bu mu teg rek ngir lu ñeel procès le vingt le seize bi ndax dafa amul ay argument wala ay preuve wala lenn loo xamante ne ni rek moom lay daal di eh, teg ci kaw table ji bu janoo ki nga xam ne moom la daal di tuumaal mu di Mame mbay Niang loolu nag moom moo nekk ay interrogation yu ci sampu tax na ñi nekk ci pouvoir bi jàpp ne moom Ousmane Sonko mi li mu bëgg du fi amee ndax ci li muy yëkkati ay kàddu sax di ko jëmale ci ndaw ñi nangu wala bañ dana ko rek daal di amal mën naa rek incité ndaw ñi ba réew mi daal di mujjee amaat beneen bu jëye wala sax incident ci réew mu tàng lool te du lool rek la ñuy xaarandi ci Sénégal. ñu daal di addu wax ci leneen mu di Sa Thiès ginnaaw bu ñu ko joxee ndam li jëlee ko ci loxol rek Reug delloo ko ko li ko waxal mu di CNG goo xam ne rek mu jënoon càmbar image yi bëre bi amoon ci dimanche bi weesu Euh, ci noonu ñu daal di gis ne kat appui am na ba jox nañu Sa Thiès ndam la moom Sa Thiès nag ni kiy démb def nag tànn bér gu mag ca golf invité ca waykat ya ak fecckat ya ngir ñu ñëw rek daal di bégal waa golf ndax nee na mënul am lu leen sut ndaxte fala rek daal di ngem boo bëre ji waaye itam ndam la golf ñoo ko moom ñu gis ne ca tànn béram ga démb Sidi Diop teew na fa xaadim temps Ndeye Ndiaye Banaya amu mel ni fu way sànni woon mbatt mu takk buri bàccaleeg Balla Gaye 2 ñoom ñëpp rek daal di nañu fay euh, teew euh, daal di fay euh, fecc fecc yu méttee métti Sa Thiès dugg bàkku béykat ay fansam ngir wane rek ne ndam li mu am ci kaw rek rëg du ndam lu ndaw ndaxte. Euh, doonoon na làmb joo xam ne yombul woon lool rawatina mu dal di am ndam ci kaw rëg-rëg ci euh, bis bo ñu jol euh, ndam li jox ko rëg-rëg waaye gis nañ ginnaaw recours bi CNG dogal ba nga xam ne jot na ko ci rek dal di wàccee ñu dal di àddu wax ci mbirum Ndeye Dimet Ndao ak Fatou Abdou ñaari katu xibaar yi nekkoon ca Sen TV te gisatuñu Ndeye Dimet ca plateau yi ca TV ay laaj sax joto rek daal di cay samp ndax Ndeye Dimet dafa démissionné ginnaaw coom li nga xam ne amoon na faatu Fatou Abdou ba yoon mujjoon cee dugal loxoom mu ngi dem ca euh, plateau Aïssatou Diop Fall di fay leeral ne coow li nga xam ne jotoon na am ci digganteem ak Fatou Abdou occasion la ci moom ngir mu leeral ay wax yu ci yu ci am yu dul dëgg ay manipulation yu bare bari yoo xam ne juddu na ci waaye moom ci ay principe am ak ni muy doxalee jàpp na ne rek ku ko manqué respect def laa war a yóbbu ci yoon loolo waral plainte jot ca juddu ba ñu yoon mujjee leen atte ba moom moo mujjee am dëgg ci kaw ki nga xam ne moom moo di Fatou Abdou ndax bu ñu fàttali ko boobule procès moom Fatou Abdou yoon daanoon na ko euh, ay euh, daan ba jotoon ko rek daal di amande euh, ab xaalis boo xam ne daal dina koy rek versé Euh, ñu daal di jeexale xibaar yi ak lu ñeel euh, diggante. Sénégal ak Gambie tey ci finalu U20 bi ñu gis ne nag moom Sénégal fi ne mu ngi ci ndëndëm maanaam moo njëkk dugal bi ma ne 1-0 match bi nag jeexagul ci jamono ji waaye mënuñoo jàpp ne fi ne Sénégal daal daal dinay dominer li nga xam ne moom moo di Gambie dana gagné am du gañe lu mu mën a doon rek ci cinquante deuxième minute bi ba ci jamono ji nga xam ne ci la ñuy waxe ak yéen Sénégal moo daal di mené 1-0 mbokk yi xarit ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal leen di jaajëfal bu baax a baax ci doon am mbégte feggoog yéen ci bile jotaayu xibaar danañu àndaat ak yéen ëllëg incha allah ci beneen jotaayu xibaar ak yeneen i ponk yu ñu war a waxtaanee jàngeen jëf ñu fanaan ak jàmm.